dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko dëjee xëy yóbbu ñu diwaanu Diamniadio ci salon international de l'artisanat de Dakar bi nga xam ne ñoo ngi ko fay amal ni ki démb la ñu ko daal di ubbi ci teewaayu njiitu réew mi di président Macky Sall moom njiitu réew mi yëkkati fa ay kàddu wax nag solo si nga xamante ni artisanat daan na koy am ak nan la mën a fexe ba ndaw ñi daal di am liggéey daan nay wax tamit artisanat nan la mën a dugalee loxoom ci lu jëm ci développement économie am réew salon international de Dakar ren ji nag ñi nga xam ne ñooy waa Turquie ñooñu ñooy invité d'honneur yi bëri na ay réew yoo xam ne maanaam daal nañ say teewa yéen a gi nee na Macky sal njiitu réew mi daal nay wax ne am na ñaari programme yu am solo yoo xamante ni banque mondiale ñoo ko financé lu toll ci fanweer ak juróom ci ay milliards te loole nag mën naa tàggat lu toll si fanweer ak ñaari junni ci ay ndaw ginnaaw loolee tamit lu toll si juróom-ñetti junni ay atelier lu jëm ci mbirum artisanat mën nañu ko sax daal di amala yéen a kaay di Vox Populi les échos source a daal di mbir moomee nag wax ci jàngoroy coronavirus yi nga xam ne moo lambaa ji réew mi am na lu toll ci fukk ay cas yoo xamante xamante maanaam doon nañu leen testé waaye nag bi ñu xoolee daal ñooñee nag maanaam amuñu jàngoroy coronavirus ji moo tax Abdoulaye Diouf Sarr ci yéen a kaay gi du source a daan ne alhamdulilah yéen a kaay gi ne ajjuma mubarak Abdoulaye Diouf Sarr af journal bii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu syndicat bi nga xamante ni moo ëmb médecin yu Sénégal ñoom nag jamono ji mer nañu ba maara day taali ndax nag xeex bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum jàngoroy coronavirus boole wuñu leen sëte nag ñoom dañoo gis ne mbirum amateurisme moo sa ama maanaam mbiru waaye di dëgg dëgg di wane ñoom médecin yu Sénégal ak syndicat ba la ñu xamle nee na ñu wax jee fi nekk rek waaye amul ay juntukaay yu doy maanaam ci bërëbu fajukaay yi yéen a kaay gi du l'Observateur mu ñu xamal lan ñu syndicat bi nga xam ne moo ëmb médecin yu Sénégal ñoom nag li ñuy sàkku jamono ji maanaam mbooleem loo xamante ni ay xew-xewu diina la maanaam ñu daal di kay dàq yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu ni ki démb Abdoulaye Diouf Sarr dajee na ak imam ak ulema yu Sénégal bëggoon leen a Père Ndiaye ngir nag ñu daal di wax ci xew-xewu diine yi ngir ñu dàq ko waaye nag imam ak ulema yu Sénégal ñoom nag la ñu xamal Abdoulaye Diouf Sarr dara maanaam mooy xew-xewu diine yi daal mënuñu ko dàq benn yoona journal bi di réew mi quotidien ba tey ak vox populi ak la tribune ñu fekk fa ba Bassirou Abdou Khadre lu jëm ci wàllum xew xew-xewu diine yi ni ki démb daana si yëkkati ay kàddu ca poroxaan la mu xam ne nag nee na Serigne Mountakha Mbacké Bassirou maanaam lépp loo xamante ni war naa xew xam na ko ak matukaay yi nga xam ne war na ko saa jël loole lépp sëriñ bi gënuñu koo xama te nag ñàkkuk taalibe weesuwul ngay jéem nag digal sëñ bi la xam ne moom la war a jëfee sëriñ bi li xew ak li xewugul lépp moo ñu ko gën a xama yéen a xamal nañu nag sëriñ bi ma ngi dalal xelu askanu Sénégal di leen wax ne daal maanaam dana fi jóge te do fi yàq yéenekaay gi mi ko xam ne dañu ko doon tuumaal ne dafa bëgg am ñetteelu mandat moom nag daal nay wax lu leer nee na ñetteelu mandat du ko def ci bopp réewum Côte d'Ivoire nee na nag defu lépp waaye def na ay résultats yoo xamante ni maanaam bët mën na saa daal di tegee Assane Samb nee na dafa wan yoon yu Macky Sall ak Alpha Condé mi nga xam ne dañu leen di tuumaal ne ñii daal dañoo bëgg nag ay ñetteelu mandat Dakar France mu ñu xamal nañu doxalin wii nga xamante ni Alassane Dramane Ouattara daan na koy doxalee nag maanaam dafa interpellé ki nga xam ne mooy Macky a a bu meewaan ndax nag Bara Ndiaye ci boppam la ñu koy tuumale dafa accusé Aminata Touré ne dafa am ay ambition présidentielle ba pare dafa recruter lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay chargé de mission ak ay conseil conseil ci benn fan rek loolee tax Aminata Touré daal di koy porter plainte yéen a kaay gi di a ak libération mu ñu xamal lan ñu waxtaan wi nga xam ne moo doxoon diggante Cheikh Omar an mi ñu denk njàng mu kaw mi ak waa SAES e waxtaan woowee nag ni ki démb dafa mujjee yàqu ndax ak déggoo amul ci seen biir waa SAES e ñoom jàngalekat yi dañoo mujjee sax gedd li nga xam ne maanaam mooy ndaje ma ndax nag Cheikh Omar Anne lu ko jàngalekat yi wax maanaam mu lan ba tëdd sa naaj wa ñoom ñu génn nag nee nañu daal maanaam mbedd mi nag jamono ji duñu ko daal di wàcc yéen a mu ñu xamalaa ñu nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Amadou Ba ca Parcelles Assainies ak waa Kogera ni ki démb nag dañu doon rayante bëri na ay blessé yoo xamante ni maanaam daal dina fay ama journal bi délibération mu xëy di ñu xamal naan ñu Mamadou Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu ISEC jamono ji ma ngi ci guddi gu bët gul ndax dañu koy tuumal ne dafa tëddee benn xale boo xamante ni am mineur la maanaam fukki at ak juróom-ñaar kese rek dong la ama xale boobe nag jugee fa nag daal di ëmb xale ba na ko yaama ëmbal Diop ISEC daal di lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi di libération ñu xamal naa ñu nag nag bu ñu waxantee dëkk am na ak lees waxul koo xamante ni daan na say ama li am ba des moom Mamadou Diop moomee daal xale bi ñu ngi koy tuumaal ne moo ko ëmbala Dieynaba Baldé la tudd di ab waykata journal bi di suñu làmb moom xëy di ñu xamal lan ñu tafaatina maanaam mbërum bawol mi daal jamono ji ñi nga xam ne ñooy VIP yi bëriwuñu ak moom te ndaw ñi nag dañu koy moytu